l'actualité en continu gars actualité bi nag dañuy waxtaanee ci li nga xam nak moy ki di Ilkay Gundagan mi ñëw wax ci Sadio Magnifique Mané wax également nim ko gisee ak réussite du côté de l'Angleterre et du côté du Bayern de ki nga xam nak moy wa Benfica démentir li ñu wax né dañoo intéressé ci Amadou Bamba et Cristiano Ronaldo de retour mais d'abord ki nga xam nak moy Achraf Hakimi xam ngeen ko final bi hein donc diggante euh, Paris Saint-Germain ak également li nga xam moy donc équipe bi di Nantes ci Tel Aviv la waram ci Israël ki nga xam nak moy Achraf Hakimi gars yi nag dañ ko euh, jox ben garde du corps rapproché garde parce que mon dafay soutenir la Palestine mon mu la ci compte li Free Palestine depuis nak menace de mort ay saga ak lu nekk jotoon 10 mai 2021 mon tax match bi dañ ko garde rapproché pour mu jege par rapport nga match amal Brest na Nous sommes actuellement dañu recruté xam ngeen ko ah, Noah Fadiga le fils de Khalilou Fadiga il a joué na 90 minutes match jongante xaritou bi et il a fait un match bo xamné c'est un match correct un match très intéressant nga donc il veut jouer pour l'équipe nationale du Sénégal donc actuellement mi a nekk ci préparation di wadjal début championnat en tout cas on lui souhaite bonne chance ki nga Noah Fadiga bi nga c'est la relève aussi au niveau de l'équipe nationale du Sénégal il est très jeune et on espère que le Sénégal ko par rapport ak yene échéances même bu nekul coupe du monde il une trophée fay di image bi laa image bi xëy ñu bëri ñu ngi koy ko damay laaj kañ la woon ah, donc image bi diggante Joshua Kimmich ak ki nga xam ne magnifique Mané donc jamono ji Sadio Mané la nekkoon ah Sadio magnifique Mané la du côté de Liverpool ak image bi ni donc diggante Joshua Kimmich ak Sadio magnifique Kaiser Mané gars yi donc image bi la lay représenter pour yéen ça montre aujourd'hui que ne voilà football day bolé du xaajaloo mais aussi que ne tay ñaari grand jour yu ñu mel bu ñu dajé rek c'est des étincelles toujours yo xamné mo ci génn positivement et yene kay bi de l'équipe nak néna mom ki nga xamné moy Lionel Messi mom merul benn yoon ci li nga xam moy mooy demu di Mauricio Pochettino ndax sen diggante hein dafa neexul won noonu comme on le dit hein donc diggante Pochettino ak Messi ndax nee nañ Messi comprendre woon ni ko Pochettino doon jouer ak aussi politique ak style de jeu am lo loo xam nako convaincre na pendant ce temps également wax nako Timo Werner actuellement RB Leipzig dako bëgg recruter nee Timo Werner il est prêt à réduire son salaire mais aussi nee fimné ni aussi Real Madrid ñi ngi xool ah, parce que Eden Hazard rôle faux neuf bi doyagu len donc ñi ngi jéem xol ndax mënu ñu recruter Timo Werner lol nak ki di euh, Liga actuel Liga moko daldi wax nga xamné également moom mooy Wesley Fofana Wesley Fofana donc mom il serait tenté pour aller du côté de Chelsea parce que moom dafa bëgg augmenter chance de jouer coupe du monde et que Chelsea tay mo gëna a de jouer compétition yu mag comparé à Leicester mais aussi Paris Saint-Germain est intéressé pendant ce temps aussi hein ki nga xamné mom ngeen gis ni di Samuel Umtiti mom il pourrait rejoindre ki nga xamné donc moy Pape Abou Cissé du côté de l'Olympiakos parce que fi ni ñi ngi waxtaan di xol ndax duñ ko jaay wala duñ ko abale Olympiakos ki nga xamné moy donc qui euh, dit donc euh, Umtiti mi nga xam ne ci plan au FC Barcelone mais aussi ki nga xam moy mooy de Jong mom bu matul té mu dem Chelsea nénañ Chelsea actuellement mi ngi activé wu pour waaj a proposition Barça na 80 millions la ci xaar Manchester United mo ci intéressé woon mais fi mu ne waxaguñ ci dara mais ñi daal di waa euh, Barça dañ ko bëgg jaay ndax dañu bëgg indi Bernardo Silva et wax naa la ko selon hein, le site hein, même hein, de de Manchester City nénañ accord de principe amna na Bernardo Silva ak ki nga xam moy euh, FC Barcelone mais li ñuy xaar rek moy jéem jaay Frenkie de Jong na Frenkie de Jong salaire am dafa nek lo xam salaire bu magam pendant ce temps là il est de retour sur les terrains CR7 Cristiano Ronaldo donc l'île de defoon mu Sunday the King uh, plays Money dimanche le roi va jouer et de mel Cristiano Ronaldo avait raison parce qu'il est sur la liste hein, de départ 11 départ bi war jouer hein. donc toujours dem ci li nga xam pré-saison defal liste de donc le uh, capitaine donc qui dit Cristiano Ronaldo il est dans l'équipe donc il va jouer avec toujours son numéro 7 CR7 donc va jouer aujourd'hui et je pense que ça montre le retour et ça annonce le retour de Cristiano Ronaldo pour Ligue 1 bien donc Prime League to et dinañu wax ne gars yi saa waay du mayee dara Iker Gundogan moom nag moo wax ci Sadio Kaiser magnifique Mané mu ne Sadio Kaiser Mané Mané moom nee na dafa am loo xam ne. da koy différencier ak yeneen joueur c'est un joueur boo il est particulier joueur le boo xam ne moom buy def benn action du ci ragal naan du mais limite de def rek da def et il le fait avec un du haut niveau ne da koy def ak li nga xam defit boo xam ne yow da lay donc nee na musta khalat musta am xel ñaar ci li nga xam ne mooy Sadio Mané du côté du bain de et c'est sait que ne moom gis-gisa mooy gën Sadio va beaucoup apporter au bain dominique étant donné qu'également au niveau de l'Angleterre il a été apprécié ben moment aussi ñu ngi doon wax ne ki nga xam Pep Guardiola il était intéressé par Sadio Kaiser magnifique Mané n'a pas pu se faire gardien bi nga xam donc il a toujours apprécié Sadio Mané parfois na mu génn tàkkale ko parce que nee communication la football laaj loolu mais c'est un joueur bo xam il a il a apprécié que nee joueur bo xam dafa dangereux euh, Moussa dangereux gën Gundogan moom na nga nee Sadio Mané joueur bo xam il sort de l'ordinaire nee joueur bo xam il est à part style c'est à part ni muy c'est à part action yi def c'est à part nee na loolu moo différencier un peu énergie bi Sadio Mané di dégager nee envie bi ñuy dégager il fait des choses même bu fekkee il le fait mal du hésiter dakoy def bu ci amé réussite c'est toujours du haut niveau donc aujourd'hui, Sadio Mané doublé, comme on dit hein, donc respecté par tous les grands joueurs Gundogan mi nga c'est un joueur de de l'Allemagne mais aussi jaar na fi nga Borussia Dortmund bu waxee li ci Sadio Mané ça montre aujourd'hui que Sadio Mané a un bon dayo a un bon gëdd boo xam jox nañ ko ko et aussi il est surveillé du côté de l'Angleterre ba tey ñu ngi koy bayyi xel parce que ñu bari dañ doon xool naan ndax Sadio bu démé fa nga xam ne ci Bayern il va réussir comment il va s'en sortir pour l'instant la fiat la fiat yalla na continuer ni, il est sur une bonne dynamique premier match officiel premier but premier trophée gars donc lolu amul len lu dul wax lu dul wax rek ne machallah machallah en tout cas c'était les propos de Gundogan envers Sadio Mané Flick Mané pendant ce aussi dañ jox bonne information bi li nga xam moy record du média portugais né mom démentir na né Benfica musta intéressé wu ci ki nga xam moy mooy Ahmadou Bamba Dieng également entamé ay discussion waxatuma lak ak naan dañ koy jéem a remplacer ki nga xam moy Darwin Nunes lolu nak du samay wax record du média bo xam média crédible la bu nek ci Portugal mo wax lu ni mel et je pense que Bamba mën na dem si un club ni mel yu club club raw sax Benfica en tout cas actuellement situation moy que ne Marseille ko on ne sait pas ban club lay dem Angleterre la gëna a mais du côté du Portugal je vous donne la bonne information moy que ne record moko wax ñene ne plaît pas pas Benfica n'était pas intéressé par Ahmadou Bamba pendant ce temps gars est élection yi tay gars nañ def élection jamm gagne et j'espère que vous gars bo bonne leen demee di voter di voter pour le Sénégal et non pour votre intérêt personnel